kilifteefu sëriñ Muntaxa Mbàkke xalif général des Mourides sëriñ Basiiru Mbàkke Anta Ñang xalif maam Cerno Ibrahima Faati Mbàkke El Hadji maam Cerno Mbàkke xalifa sëriñ Seex Awa Balla Mbàkke ndigalul sëriñ Xaliilu Rahmaan Mbàkke xalif sëriñ Mudu Maxtaar Mbàkke njabootuk sëriñ Mudu Maxtaar Mbàkke sëriñ Ganna Mesre Maxtaar conférencier international di leen yëgal bis ba mu baaxoo di ca sant yàlla boroomam yonente bi sallallahu alayhi wa di ca sant Samir dodan sa wetu min ko tudde xaritam sopem serign khadim lo gaydel bu Thiès dara jale ko serign Sidi Maxtaar Silla saykhul asrar mare ba modi soxna momi Kebe serign gane mesre Maxtaar min ko yëgal jabotu khadim rasuul cheikh serign Touba yi sëriñ Abdou Saman mbake mom cheikh soñ bu serign Ahmadou Badawi mbake ibnu cheikh Mouhamadul Fadal serign basirou mbake ibnu serign Abdou qadir yore kaddu yoonu murid serign basirou mbake ibnu serign Abdou qudous yore kaddu jabotu borom darul mukhti serign cheikh Astou fay chef de village bu Daarul Muxti sëriñ Basiru Mbakke xalifa sëriñ Seex Torom serign Modou Mamoun mbake ibnu cheikh abdou laxan sëriñ Cheikh Bara laxan Mbacke borom Njogomaay sëriñ Cheikh Bara Khourédia jabootug sëriñ Bara Khourédia sëriñ Cheikh Mbacke xalifa sëriñ Aliou ibnu Cheikh Moustapha al Karim sëriñ Bassirou Mbacke ibnu sëriñ Khadim Awaba sëriñ Cheikh Abdou Mbacke Gaynde Fatma ministre conseiller sëriñ Mor Diagne Pan Diagne sëriñ Moustapha Gaye Amsatou Touba Sam sëriñ Mouhamadou Nassirou Samb Darou Mouhty sëriñ Modou Thiam ak soxnaam Ajaratu soxna Fat Thiam kilifay aada yi président de la république monsieur Macky Sall premier ministre monsieur Amadou Ba monsieur Abdou Karim Fofana ministre de l'urbanisme du logement et de l'hygiène publique monsieur Antoine Philippe Diome ministre de l'intérieur gouverneur de Louga préfet de Kébémer sous-préfet bu Mouti, maire de Darul Mouhty monsieur Galoba maire de Mbaké, ministre de la fonction publique honorable Serigne Cheikh Thioro Mbaké, monsieur Mohamedou Gueye maire de Thiaroye directeur impôts et domaine, Serigne Sidi Niang Touba Kër Niang Serigne Djili Kennel Serigne Touba docteur Souran Touba Serigne Mourtada Lo ak njabootam monsieur Ousseynou Fall Global Textile Dakar Serigne Ousseynou Kane ak njabootam Serigne Bara Diop talibé Mam Cheikh Issa Diène Serigne Modou Mbaké Diop talibé Mam Cheikh Issa Diène monsieur Bekay Mboub ca Mbour Serigne Abdou Fatah Ndiaye di talibé di soppeb Cheikh Mamadou Fadel Mbaké, Serigne Ganna Messere conférence financier international di len yeugal bis ba mu baxo di ci sante yàlla boromam yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ci sante khadim rasul mam cierno ibrahim Faty mbake di ci ñaanal nak serigne Cheikh o Balla mbake ak serigne ñëm serigne mudou Makhtar mbake talaata juróom-ñaari fan ci wéru mars kërëm ga nek darul mufti kërëm yër do dan ci sa loxo càmmooñ mi ngi ko tuddé serigne khadim lo gaydel dara jale ko serigne Sidi Makhtar si la sayxul abraar maree ba modi soxna momi kebe bintu alaaji njuga kebe bu ñu xeye jàng alquranul karim qasida istighfar ak salatu ala nabi 14 heures julli bernde 17 heures cérémonie officielle ba serigne ganne mesre Makhtar dana dafa waxtane dund ak jar jaar yi Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké khadim rasoul digganteem mak mam Thierno Ibrahima Faty Mbacké ndamal daru Muxti mi ngi koy sàkku nak tewayum jullit yi taalibe yi xarit yi soppe yi dekkando yi Serigne Bamba maam Thierno faté ko doy te xel xam-xam ak fitwa ak cër bu reuy bamuy muy dem géej da ko yonne ndar mu dem gis borom ndar di saf gar gu mer mu ñëw Bamba jébbal ko yon wépp dem njabotam gi ak donga yeey wut ngërëm Serigne Fallou Cheikh mustapha lañ ko jox mu yor leen diine ak ngorom duñ ko ñox borom daru yor léppi yon wi doxal njabot bokk yaak Cheikh ya lay jox ndigal juróom yaari at Bamba dem doga ñëw gisem bak borom daru ndar fess sa yiw sëriñ Ganna Messere da cay sant ngir sëriñ Bamba maam na jox nañ ko cër sëriñ Ganna waxtaanee Bamba ak ñoñam ba xëy am pajuk ajo raw ay kemam sëriñ Ganna Messere na buur may ko wér teful wërsëg ak fan wa fanqal ko lor liggéeyam ci ak taalibeeg diine ngor mu sottal ko kuy soppe am ngën ji cër sëriñ na cantam gi ñan naa ko dem na am ay ngërëm texe xefeek feenu jëm laa qualité fait la différence